gaay ba yéen a ci jàmm man la seen xarit seen doomu nday maître maymuna tay nak mom affaireu avocat yi yeb dañ ko tege nee tay dama ñew tay pour wan leen ki nga xamanteni moy mooy seen acteur bi ngeen gëna bëgg pour mu wax ñu exactement lan moy ay projet kan la moy Cheikh. assalamu salaamaaleykum mère. alaykum salam Cheikh ba yaang ci jàmm. bo ma ci jàmm bu baax baax tay sante yalla bu baax baax tay dañ bëggoon nga wax ñu exactement lan moy say projet. Euh, avant tout d'abord, abord nag damay présenter wu ba pare ci ñi nga xamanteni xamuñuma bon mal, Cheikh Sakho acteur ci Aïcha l'enfant prodige en même temps membre ci aforevo Revo sama projet tay du woon lenn lu dul ñëw comme sama euh, fiancé bi tel anniversaire am ma bëggoon a ñëw nag defal ko benn surprise boo xamante ni moo ci boppam daf koy jëlee kaw ah lolou mom ñing koy rafet lolou bare bare bare mais euh, nga ni da nga bëgg marié mais ba am nga confiance ci xalé bi nga bëgg marié waaw xalé bi nak amna ci moom confiance trop sax motax na ma bëgg ko jël soxna mais ben instant dal amna ci lu may xaw a touti rek ah bon douté mais li ngay douté noonu ba yow tamit euh, nekkoo di juuj njaay <laughs> non non man moom paré man moom ju jaaju ba dara wax dëgg neex yàlla wóol naa sam bopp xanaa benn instant daal ci côté am laay xaw a tiit daal ndax xam nga jamono joo tool jamono joo xamante ni dafa mhm. dafa dafa tëradi kenn xamul d'accord yàlla baax na mais que xale bi ngay wax amul benn problème léegi dama bëgg nga jox ma numéro comme ça ñu woo ko ñu xam exactement lan mooy kii moom tamit waaw léegi loolu noonu ba pare dama bëggoon am na benn cadeau bu ma ko waroon a offrir bu ma ko bëgg a offrir euh, léegi balaa boobu xam naa suñu paree loolu après ma jox na numéro. est-ce que mën nañoo exactement cadeau bi lan la. cadeau bi waaw 11 pro la. 11 pro. non astafurlah 14 <laughs> du moins 14 <laughs> moom moom moo ëpp loolu noonu quoi moo tax 14 bi laa jox xam naa. léegi dama bëggoon nga jox ñu numéro bi comme ça ñu mën a waxtaan ak moom. Allô Oui, allô Ça va, Mina Ça va bien. Kokal Joyeux anniversaire. Mm, merci beaucoup. man la livreur bi la war a indil cadeau. Hmm. cadeau bi nga xamni ki nga xamni mom nga gëna bëgg ci sa aduna mo la ko offrir ci sa anniversaire bi. ah ok. Mhm. léegi légui numay def jot ci nak non loolu mom du doon problème ndax man maa la ko war indi mais dama soxla woon rek euh, nga wax ma tur bi pour ma xool ci papier pour mën mën la ko yónnee. turu kan. ah sa turu copain bi nga xam ne moom nga gën a bëgg ci sa àdduna. ba tax mu jaral ko euh, envoyé la cadeau bu am solo bii. Euh, Moussa Moussa. non non non du Moussa de. Ah, wax nga dëgg wax nga dëgg <laughs> dama jaawale ma fàtte de Moodu la Moodu. Hmm, tá? Não, do mudo, do mudo. <laughs> Ah, wax nga dëgg xam nga ak anniversaire ak yooyu nonu pression bi dal xam nga ba japp way. ah Samba way, Samba la de. Samba. Hmm? non non non du Samba du Samba du Samba. Ba soxna si nak lolu cadeau la la sax nak. cadeau <laughs> bi de cadeau bu am solo la ndax 14 pro la. 14 pro max. waaw waaw. allahu akbar. alaaji la. ah alaaji. xaaral xaaral ma jàppale la tuuti. Cheikh la. Cheikh. waaw. Cheikh ah ok. ayu waay Cheikh borom kon yo nii nga nekkee ci àdduna bi yow. yow ni laa lay bàyyi Amina. Eh, non yow yaay baadoo la ak li ma eh, def ci yow lépp. fay la say jàng ah. lu ne ma defal lako tay amo lamay fay lu li kon yow ndekete yow mbaral gu metti nga nekkee si dëkk bi yow aminata yaay do la indi wu ma dara laa la wax yow sama diggante ak yow yam na fi yow vrai do la la dara duma la ko jox yow tout sax doto ko am man ak yow c'est fini jeexna ah cher, je suis désolée de du courage man yeen jigen ni xoma lan ngeen bëgg yeen jank ji mbaran suba mbaran ngoon boole juroomi goor pour lan yem leen ci kenn ngeen dawal seen wërsëg yàlla boole leen mbaran gi pour lan la ah ah rek leen waay yem leen ci kenn fidèle leen lu am solo la yeen sama xarit sama mbokk yi maa ngi leen di ñaan ngeen partager te aimer te képp ku bëgg xam nag sa partenaire fidèle na ci yow wala déet ñëwal ci man ma leeralal la ko bu boobaa dinaa leen wax wan ndax fidèle na wala fidèle